temps yi dama leen bëgg a wax ni que le pouvoir là on l'a pas ramassé comme vous le savez pour pour pour gagner Ablaye Wade il fallait que ñëpp mobiliser 66 pour cent de la population mu ñoo mobiliser pour am pouvoir bi jox ko président Macky Sall muy liggéey donc loolu yëpp mobilisation boobu ñu amoon dañ koy mobil dañ ko war a mobiliser contre l'opposition bi nga xam ni teguñu fi dara lu taxaw ils n'ont pas de programme programme bi ñu am rek mooy amalgame intoxication désinformation et mensonge donc ñun dañu war a taxaw taxaw jon comme ni ko taxaw tem comme ni ko ni ko euh, Ibrahima Fall doon waxee taxaw tem pour les contrecarrer parce que quand même nañu dem laaj opposition ba la ñoo nekk seen ba la ñoo nekk Dakar di wax nañ dem ci région yi def tour région yi laaj population bu ñu laajee population yi dañ leen wax ni que président Macky Sall foo ma dem man chaque chaque weekend maa ngi ci àll bi foo ma dem dañ naan ma président Macky Sall li mu fi defagul li fi defagul du ma leen laaj sax moo tax du ma li mu fi defagul depuis bi mu jëlee pouvoir bi quatre ans nit ñi nit ñi am nañ fi jël nañu pouvoir pendant def exercer nañ fi pouvoir pendant pendant presque cinquante deux ans defuñu ko fi defuñu ko fi en matière de PSE agricole en matière de PSE eau en matière de PSE énergie en matière de PSE emploi tout président Macky Sall résultat yi mu fi amagul palpable jëlee croissance bi 1,7 pour cent yóbbu ko 6,4 pour cent et vous avez vu le budget mille milliards chaque année mu yokk actuellement 3355 milliards donc vraiment le président Macky Sall fa décider pour améliorer les conditions de vie des populations ñii nag bu ñu tardeel mais il faut leur opposer une résistance farouche parce que dañuy yàq bëgg a yàqal nit ñi moo tax ñu mobiliser teg ko ci ay loo xam ne du dëgg teg ko ci amalgame teg ko ci intoxication teg teg ko ci désinformation affaire pétrole bi mais y' a pas de problème parce que mais Alioune Sall c'est un privé mën na il peut capter il peut normalement mën na def ay stratégie pour capter des opportunités comme tout le monde c' est un privé c' un privé bu ko neexee donc c' est pas la peine c' est pas la peine ñu ci dugal président de la république parce que yoonu président de la république nekku ci président de la République ni mu def li mu ko li ko ñor mooy li nga xam ni mooy servir population bi yëpp liy servir population bi yëpp mooy baisser les loyers baisser les denrées de premier nécessité xam nga loolu day day laal ñëpp loolu moo ko ñor li muy programme yi muy def yëpp c'est pour la population tout entière c'est pas pour benn nit pour ñaari nit man li ma ba laaj rek mooy que ñun ñi nekk ci président Macky Sall muy APR muy les parti Benno Bokk Yaakaar ñun ñëpp ñu mobiliser parce que opposition bi il faut ñu won leen ni que nag ñun la ñu population bi ñun la wóolu ñun la teg pour 66 pour cent ñun la teg pour 66 pour cent loolu actuellement occupation terrain bi ñuy def ñun ñoo leen ko war a ñun ñoo leen ko war a dàq parce que ñun ñoo nekk au pouvoir il faut que ñu opposer leen nit bu nga xam ne chaque fois bu dee wax day wax loo xam du dëgg il faut nga tegal ko beneen wax bu dul dëgg et puis comme li ko premier ministre waxee rek bu fekkee wax nañuy dugal leen ñee nekk fële parce que gisuñu yàlla fayul wax fayul wax bàyyi fi jëf ñun dañuy jëf ñoom ñuy wax mais wax day tàddeel population bi day tàddeel nit ñi comme wax boobu nag il faut ñu arrêter ko c'est pour l'arrêter si leur opposer de leur appliquer une opposition farouche loolu la ñuy def loolu la ñu voté te ñun commencé nañ ko dans le département loolu lañuy def fu ñu taxawatee rek nañ leen fa fekk fekk parce que pouvoir bi on l'a pas ramassé dañ ko gagné de pleine lutte il faut que ñu def tout xeex ko ba gagné ko dañuy xeex nag ba conserver ko. waaw affaire Adama Gaye tam mel na am na lu mu wax loo xam ne waroon na ak li am. non Adama Gaye moom vraiment moom ak euh, premier ministre ancien premier ministre Abdoul Mbaye moom ñooñu ñëpp c'est des gens yi nga xam ne c'est des porteurs de projet dañuy porter ay projet pour opposition après xam nga xam nga xam nga xam nga actuellement kii bi bu ñu ko joxee euh, euh, les. pétrole bi bu ñu ko joxee ah bu ñu ko joxee ku ñu ko jox donc amagul sax pétrole parce que affaire actuellement phase de recherche lañu nekk benn kii génnagul donc gars yi ñu ngi ci recherche ñoom nag xëy na dañ doon bëgg yeneen firme yoo xam ne que ñoom ñoo ñoom lañ ko bëgg jox mais bari na mën nañu amee yeneen firme mën nañu ñëw yeneen firme def ay recherche pour am moo gën ñuy topp ci doo doon porteur parce que affaire loolu dañ ci dépassé nekk di di di di di dem firme étrangère di ko indi di jàppale contre sa réew ko dépassé vraiment les gens doivent être patriotes parce que ñu xam ne président Macky Sall du marché ci chantage kenn mënu koo chanter loolu c'est un homme de gauche malgré APR lañ si nous sommes un homme le président Macky Sall un homme de gauche kenn mënu koo chantage ku yaakaar ne mën koo chantage da nax sa bopp donc chantage yi di wax et tout ça taxul président jox leen marché taxul président seen seen seen les les les les les les investisseurs yi ñu représenté à l'extérieur ñu am dara dara dara dara te damay wax ne Adama Gaye TER bi participer wu ci woon entreprise bi mu indi woon bi nga xam ne moom la moom moom dafa indi dafa dem wuti financement ànd ak benn entreprise pour liggéey ci chemin de fer bi loolu laa ko wax sa entreprise boobu ñoom ñoo la indi ñoom rek ñoo la mën a dindi ci affaire bi ñun mënuñu la cee dindi ñun mën la cee dindi entreprise bi la indi woon yu nigun moom rek moo ko mën a dindi ci ci li mu ànd ak ñoom mais ñun mënuñu ko dindi ci loolu. nekkul woon ci terre bi nag bi muy terre bi nag bi ci nugun bi muy bi muy soumissionné àndul woon nag moom et il n'a pas gagné mais loolu taxul mu mer moom lu tax mu mer mooy financement bi mu proposé au niveau ministère des finances gars yi war répondre guñ ko accepté guñ ko mu mer di def ay chantage mais chantage yooyu ça ne passe pas mais man li ma jaaxal ci gars bu ñu meree benn ministre au lieu ñu dem attaquer ministre boobu dañuy dem attaquer président la république mais man jaaxal nañ ma moom financement la proposé ministre des finances ministre des finances accepté gu ko mais na dem foofu na dem foofu wax laajte lu tax accepté guñ ko lu tax étudier nañ ko wala wuñ ko mais attaque gu président de la république yi loolu vraiment ça ne l'agrandit pas du ko anoblir parce que moom dafa mus a wax ne président xaritam la sa xarit nag boo amee dara loo koy reproché da ngay dem ni ko ah da ngay dem ñaan ko rendez-vous nga wax ko lii laa lay reproché nii laa lay mais nekk ci rajo yi di wax ak wax lu dul dëgg di inventé loo mus a loo loo mus a wax ak président wax ko ci wax ko ci kii soo c'est pas un homme d'état te vraiment journaliste yi mën nañuy changé dëkk buy dox da nga koy accompagner bu fekkee ni am nañu patri ci son patriote dëkk buy dox boo xam ne croissance bi jël nañ ko un 1,7 pour cent yóbbu ko 6,4 pour cent ñu def des productions record dans le monde dans le dans le dans le dans le monde agricole daal di wàññi dund bi lépp ñu wàññi wàññi loyer daal di impacter ci niveau de vie des population population bi lu ñu musul woon a gis boo demee ci àll bi muy courant muy ndox lépp muy muy tali muy ay machines yi nga xam ne pour walla pour wa wàññi seen seen coono ci liggéey ñoom ñëpp ñu kontaan ni ñun président Macky Sall li muy defal depuis indépendance depuis cinquante deux ans kenn musuñu ko defal moom li mu ñuy defal raw na ñi fi deful yor ñi yore woon état bi li ñu fi def moom raw na ko donc loolu nag président bu ñu koy defal ab sëriñ sama sëriñ sëriñ Abdou Al Amin wax ko jaajëf ñun ñëpp ñu war ko wax jaajëf te ñooñu ñu wax leen ni que la paix est debout pour leur opposer une résistance farouche du ñu bàyyi ñuy ñëw ak ci amalgame di def intoxication di def désinformation pour yàqelu nit ñi pour yàqelu nit ñi nañu dem wër nañu def tournée wër ci àll bi xool vraiment les réalité du terrain ba doog a ñëw dakaar di wax loolu ça ne les agrandit pas maa koy wax maa ngi koy waxaat encore bu fekkee ni moom am na am na am na lu muy wax comme nee na président xaritam la na dem toog ak président wax ko moo gën te dama koy wax l'ennemi de na ami est mon ennemi man depuis bi mu commencé wax yi je le prends comme un ennemi et nu ko mën a combattre naa ko combattre nu ma ko mën a combattre naa ko combattre parce que l'ennemi de mon ami le président la république est mon ami l'ennemi de mon ami est mon ami parce que li muy wax yëpp ay inventé loo xam ne du dëgg loo xam ne du président maa ko dugal fii maa ko dugal fii mais vraiment loolu ça nous intéresse pas ce qui nous intéresse mooy li nga xam ni mooy développer dëkk bi li nga xam ni mooy améliorer les conditions de vie des populations te président mi ngi ci mi ngi ci ku ko ku mënul ñëw jàppale ko ci loolu nga xam ne tu n'es pas un patriote bu fekkee nag bato buy dem nag ñëpp dugg ci nga bëgg bato bi daanu daane waale ñëpp loolu moom ku ko bëgg xamal fii moom di nga di di ñu reyaale di ñu rey bala nga ciy dugg bala nga sa entreprise boobu bala nga ci am résultat di nga jaar ci ñun parce que fi mu ne nii l'APR coalition Benno Bokk Yaakaar ak ñëpp ñu yaakaar président président de la République nous sommes debout pour contrecarrer toutes les stratégies yi nga xam ni demul fenn c'est des gens c'est des mercenaires yi nga xam ne dañuy représenté extérieur